àllarba ji lay jullit ñi dañu daal di amal lii di korité fii ci ñi nga xam ne ñooy jullit ñi dañu daal di daje ci gox yi façon ci yi ñu fasale amal jullit yi jàllatul ñu gën koo xam ci kër gu mag mu nekk makkaan ci sañ ci yoonu murid bi nga xam ne nag mooy rek xalifa général des mourides nekk imam ratib grande mosquée bu Médinatoul bu Serigne Fallou Mbacké Bachir moo jiite julli mu ànd ak gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall ak maire bu commune bu Diourbel moom imam bile bu Serigne Fallou Mbacké Bachir ñu ngi yegg si fukk waxtu bi jot